ci élection yi da ngeen ne di ngeen neenal dinañ ko. di ngeen ko neenal. c'est-à-dire di ngeen ko duma di ngeen ko dóor ba ba ba ba ba neenal ko. waaw ba tey mais ba tey waxuñu waaw mais ba tey waxuñu dinañ ko coup d'état loolu moom la constitution di tere ba tey waxuñu ni. dinañ ko dinañ dinañ ko délogé. Ousmane Sonko a appelé ba tey waxuñu dinañ ko délogé a à appeler les FDS à prendre leurs responsabilités. Et moi, je les appelle aussi à prendre leurs responsabilités. Xam nga lu tax? Ah bon? Oui, Comment? ils doivent prendre leurs responsabilités. C'est-à-dire? les FDS ont comme mission euh, de sécuriser les Sénégalais, les biens publics et les premiers biens du Sénégal, comme li ma wax, c'est les citoyens sénégalais. Donc c'est nous. Les FDS ne doivent pas accepter et ne doivent pas participer ne doivent pas être complices, ne doivent pas regarder des Sénégalais se faire tuer sans pour autant que ñu jël seen responsabilité. mais nan la ñuy jëlee ko waxul kan leen koy wax. mais la ñuy jëlee seen responsabilité. mais en ne répondant pas tout simplement aux à ces ordres et ça on le dit on dit ils ne doivent pas répondre à des ordres illégaux parce que ordre boo xamante ne teguwul ci le respect de la vie humaine amul ku ko war a respecter. mais ñoom ils ont ak tenu boo mënti sol ak loo mënti def parce que xam nga lu tax. ñoom ils ont le monopole de la répression on leur a donné assez de moyens pour réprimer toutes sortes de rassemblements de façon pacifique il y a nulle part où c'est écrit qu'ils ont le droit ñoom di faat ay bakkan parce que ñun dañuy demander suñu ay droit loolu moom may mun a amul benn droit bu leen ko jox fii ci Sénégal bu ñu defee la rétrospective xam nga ce qui est grave gis nga bu ñu defee la à nos jours y a peu de morts yu ñu mën a teg loxo ñu ne policiers yi ñoo leen rey beaucoup de Sénégalais ont péri dans des conditions nébuleuses dañ naan diw de man 2021 on a vu un flic tirer à bout portant sur un jeune mu daanu la corrélation est faite mais est-ce que xam nga ne parmi ces cinquante morts la bari na ñoo xam ne du FDS yi ñoo leen rey est-ce que du duma la ko jàngal les FDS là dañoo nekk fii pour euh, veiller sur la sécurité des personnes et des biens les personnes ce sont tous les Sénégalais ñooñu boo leen wax ñu jël seen responsabilité euh, beneen connotation lay am quand on dit au FDS de prendre des responsabilités loolu loolu c'est une interprétation peut-être c'est de refuser d'exécuter des ordres et le jour où ça arrivera mhm. c'est la fin de l'État non c'est pas de refuser d'exécuter des ordres c'est pas parce que on exécute on a différents choix d'exécuter un ordre et justement c'est ça qui fait qui fait quand même la part des choses entre une milice et une armée ou une police. Une police, elle est républicaine. Elle, elle, elle représente l'État, mais elle représente le peuple. Mais non, FDS sont républicaines. Oui, mais bien sûr, ce que je te dis, elle est républicaine. Elle représente le peuple, elle représente l'État. Quand on attaque même, même quand on réprime une manifestation, donc on va réprimer avec les mêmes arguments, les mêmes forces que les forces d'attaque. ñoom xam nañ seen liggéey man su ma taxawee di manifester mbuusum ndox mais mun waroo mën a sànni équitable mais boo warul manifester bëgg a manifester mais bëggee manifester amul autorisation le policier ah. ma ne la ma ne la may moo tax man ne la may mën a ak yi nga am ma am ko bëggoon naa tey bu may ñëw ci sa débat bi mu nekk débat boo xam ni peut-être du ma nekk dans cette forme physique un peu vraiment ñëpp xamee wuñ ma sax dal je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire Andika ah, kii arrive à être calme parce que vraiment je suis quand même sous le choc et j'aurais voulu euh, parce que c'est pas parce que je je je je veux toujours être en mode guérilla mais c'est parce que j'aime faire sortir ma colère euh, parce que je considère que sama colère ça reflète la colère de beaucoup de gens mais aujourd'hui je, je n'ai même pas encore la force de sortir cette colère tellement euh, il y a une espèce de crainte buy étouffer colère boobu et j'aurais aimé être là avec cette colère ces forces de l'ordre ce sont nos frères ce sont nos sœurs ils doivent faire leur rôle mooy que état bi bañ a daanu mais ils doivent faire leur rôle c'est de protéger le peuple et à chaque fois qu'on sera face à eux on leur dira prenez vos responsabilités vous ne devez pas on ramasse nos morts et nos cadavres nga ne leeralul kan la ñan ñu rey lu leen rey mais ñun ñi ñuy jooy ci ñun lañ leen di jooy nit dina dem guerre di rey ay soldats ban sens la combat boobu am ça n'a pas de sens c'est les populations qui sont à terre c'est eux qui enterrent leurs fils et c'est les populations qui sont dans la rue en train de manifester donc je crois que am na loo xam ne jarul sax xootal parce que l'essentiel mooy ñu du jog ci population di jóg taxaw pour jàmbaarloo di wëlbatiku di gaañ boppam am sens. ay nit ñoo xam ni dañ et puis attends attends y a eu quand même y a eu quand même des preuves parce que fii rey nañ fi ay nit Ziguinchor Bignona ñu def ay autopsie naan la ay objet contendant ñu def contre expertise gis ni ay bal moo leen rey. te kan ay bal kan lañ jàkkaarloo woon. kan lañu jàkkaarloo woon ba bal rey leen.